ñoo daan mbëkkante si mbapat bi de. léegi ñoom daal a mbëkkante fii si arène daan mbëkkante di daanante. waaw souvent chance rek mooy am. coup de chance nga am ñaar ñetti combat. soo bëgg a taxawal foofu yow fekkee bi bi muy mujjee daanu Papa Sow général moo ko daan sama kanam. fekkee nga général Malick Serigne Ndiaye fay combat yu neex. général Malick Franc fekkee général Malick Franc Franc Serigne Ndiaye yooyu sama huit ba tey maa ngi seetaan lamb. Uh-huh. Reug depuis deux mil douze ba tey maa ngi koy gis. waa ñoom ordinateur ñooñu génération boobu lañ. Uh-huh. génération boobu ñoom jamono jooju lañ dugg si lutte simple. Eh. jamono jooju noonu tey. Uh-huh. mbër yooyu tey père ku siy bëri xam naa li nga mëne xam naa li nga mm. tële. dëgg la ku siy bëri tey su ma ne andi woon adversaire tey bu ma ko nee bëri lii ak lii ak lii du la daan du la daan. kon yaakaar naa ne xam naa leen kon général pour mu dugg si ñoom pour bëre dina xaw a jël tuuti temps wala waaw moo tax ma ne am na écart bu am seen diggante parce que liñ liñ liñ a rawee tey mm-hmm. ay potentiel adversaire am tey ci lamb tey père tey waaw Serigne Ndiaye ñoom ñaar war nañu war a mën a bëri mais dama gis ne dafa am lu dugg si diggante bi ah. moo tax xawma ma ne bëri xaj na fa parce que am na mm-hmm. mais giri moo gis ma ne ko ko tëggoon tëgg man ma yokk si. général Malika Forza. pourquoi pas. général Malika bu daanoon Forza tey bëri Forza daan ko day day am chance gën a yokku. Forza nekk nekk aussi que Forza mën na ko daan ça dépend rek. mais comme dañuy wax si cas général Malika tey bu bu bëree ñaari combat moo tax ma ne bu bëree ñaari combat da leen di dab. da leen di dab. waaw mun naa gis tamit général Malick a Sock xaw ma ndax. d' accord ba tey ba tey. Ah. parce que ñoom ñaar fils de Balla da leen boole Jam Tayir boole leen. mun naa wax général Malick Doud Sané. ba tey pourquoi pas mais mais tamit ah. foogoo ma ne dinañ bëree aussi. ah boobu tamit ay waaye ay millions ay combats yu neex a ngi yàqu. mais yow narul bëri ak Serigne Ndiaye. Ah. naroo bëri ak Doud Sané. waaw xam nga souvent nag mbir aussi day am lu leen di lié. souvent day am lu leen di lié loo xamante ni tey day ñëpp duñ ko mën a xam. wala doo mën a jox ñëpp explication. waaw mais yow dalay leer ñaar ñii muy neex muy naqar doo mës a fii am na fa ay combat yu mag yoo fa nag ay ancienne hmm. bu ñàkkee Serigne Ndiaye. waaw ñàkk Forza. waaw non non ñàkk Serigne Ndiaye ñàkk euh, Doudou Sané. donc man pour man dama jàpp ne. Hmm. Forza moo fi sës. Forza mi fi. waaw Gris 2 mu ngi bi nga lim mu ngi boo demee sax tey ba ba ba ba Guédiawaye pourquoi pas Alioune Seye 2 may ko san ça dépend pop pop pop pop pop mais Boucar yow jënd lamb nga bu ko neexee may généralement mais Boucar mi jënd lamb parce que parce que Boucar mi est-ce que xam nga Boucar bu baax a baax a baax mooy kan wax ma ko mais Boucar ah. demal lutte simple fekk ko fa mais da xam ni kii mhm. daf ko maîtriser il est dans son élément ba pare yemul ci loolu day organiser ah. ba pare def ay action ah. yu baax. ndeysaan di wër moo tax ñu jox ko cër bi. ndeysaan li mu nekk fi mu nekk def lii. Ah. c'est parce que da koo xam. moo tax ma taf ko sama wet. da koo xam. dëgg la Iba Iba Kane Iba Kane sunu làmb. waaw ah. <laughs> ah. bu nekkee fii. Ah. c'est parce que. de vingt ans ci làmb. man xam nga. en général yi du may ñëw. ci mel nii sax. man du ma wax duma ma ci làmb man sécurité rek laay wax. sécurité rek mais yow soo gisee yow yaa ngi may woo boobu ba tey. boobu ba tey. waaw mais damaa ñëw parce que. da nga bokk ci làmb nag père. sécurité moo wax sécurité. waaw man. moom laa bëgg. mooy base ba pare waaw man loolu la loolu la mais yéen ñii. Ah. mais xam nga làmb. yéen ñi nga xam ni yéen te mm. am na seen yeneen i morom. Mm. yoo xam ne kii nañ. waaw pourquoi yéen du ngeen toog di waxtaan. Mm. di ñaax gën a ñaax xale yi. waxtaan ak ñoom naa leen lii lii. di fair play mais xoolal ku mel ni général Malika bii ngeen di wax. mun euh, bul fàttali moo takkoon. Euh, capitaine capitaine euh, équipe nationale. donc ku nit ñi jox bët la. te dafa war a dem. mais moom il faut qu'il revienne sur terre. maanaam. bu ko gaay bu ko dara këf. mu gën a dal. na dal. moom xam moom xam na ne. Mhm. trait bi dañ koy tere te ah, ëllëg bu ko am nañu benn ku nekk en ligne. Mhm. allo. allo asalaamaaleykum. waaw ah, kii dafa mel ni c'est le di Kayar de. Mhm. <laughs> mooy kër. jam tëri. jam tey nuyu naa la. waaw maa ngi fay. ah am nañu contentement de nga bëre démb tey nga ñu dugg émission matinale de sport yaa ngi en direk ci Lutte TV. waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp rek. commandant Cuun moo fi nekk ak Boucar Ndour. waaw maa ngi nuyu père commandant Cuun bu baax a baax di nuyu Boucar Ndour bu baax a baax a baax. waaw. di la nuyu yow moom tamit bu baax a baax a baax. jërëjëf. di nuyu waa axlu làmb mhm. di nuyu waa Sénégal di nuyu samay supporters di nuyu tamit waa Malika gi ma doon jàkkaarloo démb muy sama sama adversaire général mhm. Mhm. allo ligne bi la allo waaw maa ngi waaw di bëgg nag sama supporter yëpp di leen masaw coono di leen jaajëfal bu baax a baax a baax képp koo supporter jëm seen bu baax a baax di leen jaajëfal baax a baax mm-hmm. dëgg la mm-hmm. boo bu sama première question mooy ñu ñëwaat tuuti sa combat sa combat ak général Malika arbitre sifflé nga daw bëree làng lan moo waral loolu sëriñ yi ñoo la ko wax wala sa entraîneur moo la ko wax non loolu moom ay tegtal la woon rek ay tegtal waaw man tegtal la woon xam nga làmb moom dina la jox ci taw yoo xam te ni mënu ko ñàkk ah. ma mën mooy saa saa yoo saa yoo war li ma gën a ci bëre la ma kon nag yàlla dem na maanaam boo waree daanu daal cuune ngay doon cuune ngay doon. boo ci biir combat bi ci biir xeex bi ak ci biir bëre bi yan erreur nga def ci biir bëre ba ñàkk combat bi. non xam nga xëy na doo ko xam gars yi ñoo koy xam. waaw. mais xëy na ni mu war a xeexoon ak moom. waaw jël na samay ku jël naa ay koom jël na samay ku jël naa ay koom mooy ne góor war na jàppal ba war naa góor war naa jàppal ba ñu jàppante. waaw. mais bi ñu jàppante noonu ba bo bi nga jàppante man maa ko bëgg di génne saako yi premier gëstu parce que loolu laa yóbbu si laamu.

waaw man bu nga xëcc na man maa boobu gis parce que loolu tegtal yu mu indaale woon tegtal yu mu indaale woon. waaw dëgg la. Hmm. waaw maanaam daal boo la daan daal Iba cuune nga doon cuune. mais sur le plan physique ñu bëri nee nañ da ngaa diis ne da diis est loolu am na. man dama wàññi man man dama wàññi poids bari ci combat boo gisee ni ma toll xam dama wàññi poids bari ci combat bi. dëgg la. Uh-huh. ma commencé dama ci wàññi poids bëree bëree bëri dama see dama see jeex tàkk. dëgg la. Uh-huh. waaw tey bu dul te te te tey jii maanaam bu fekkoon dama dama daan ñu bëri ni jëm tey poids bi weer baax na. waaw mais am na boo daanoo moom digg digg ay kii. dëgg la c'est vrai làmb mel noonu. Uh-huh. waaw saa yoo daanoo digg digg ay kii ñun daal. ñu ngi masawu ñëpp ñu ngi masawaat ñëpp coono daal. dëgg la mhm. war a ñaan ñu war a jàpp jàpp nan. Mhm. ñu war a def def nan yàlla moo ñu koy jëlee. xam nga yow da ngaa jafe woon utal combat koo wax Diam Terry rek mu daw léegi comme nga daanu nga xanaa léegi am combat war na la mën a yomb de. waaw surtout waaw surtout waaw <laughs> comme Diam Terry day naqaree bëre nangam naa ko waaw. Ah. ndax làmmiñ waaw ah, dinañ ñëw dëgg la Boucar loo xaaral Boucar am na question moom lay laaj Boucar loo koy laaj balaa ñuy tàggatoo ak moom bon di ko encouragé rek di ko félicité parce que gis nañ accueil bi ko waa Kayar defal mm-hmm. mooy wane ne jàmbaar la garmi la mm-hmm. te der la aussi quoi xanaa rek di rek rek lan lan lan lan maanaam lan ñu mën a wax tey ci combat bi préparation lan moo ko manqué mm-hmm. lan la jàpp moo ko manqué Boucar Ndour di la laaj ne lan moo la manqué si wàllu wàllu préparation ak wàllu jàppale lan moo la manqué si combat bi non jàppale moom manqué naa ko bu baax du ma leen nëbb dëgg. ah manqué la nga jàppale. baax baax baax baax yàlla xam na ko combat bii may wax nii mooy sama combat bi du dee samay combat. waaw. li ma jàppale lépp lépp lépp lépp bu motee lépp deux millions ci Uh-huh. leneen loo gis leneen leneen loo mën a gis man maa maa maa defal sama moyen ni bopp. Uh-huh. loolu metti na. loolu metti na man man du ma triser maa ngi toog nii samay biir supporter toog sama biir mbokk di wax. Uh-huh. dëgg la. te démb xam nga xam nga xam nga ñaata kaar laa ñaata ñaata kaar la déplacé laa jël nga déplacé. vingt vingt neuf. vingt kaar. laa bu nekk nga luwee ko ñaata. 42 places la car la. car bu nekk nga luwee ko ñaata ñaata nga ko luwee xaalis. car yaa ngi ko luwee. fi nekk bëri na. cinquante mille. kaar bu nekk cinquante mille ku ko. ah mu nekk ci vingt neuf kaar bu nekk cinquante mille. waaw toppatoo naa si ay bëri yooyu. Ah, dëgg la dëgg la dëgg la. cinquante mais ñu ñu ngi lay gërëm di la sant mon frère. ah lii ligne bi dem na. mais loolu. allo bii ñëwul dara ñëwul loolu métti na. waaw ah, métti na dëgg la. ma ne te bii ñëwul dara ñëwul bii ñëwul dara ñëwul. Ah, dëgg la mais nag yàlla bu baax baax a baax. waaw jërëjëf. di ko ñaanal yàlla waaw di leen baax di nuyuwaat waa Mouhamad kii yëpp di leen jaajëfal xam ne làmb la woon jeex na jeex na. jeex waaw a euh, baax. jërëjëf. waaw maa